aawuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuy di leen ziar di leen ndokkeel di leen baal bu baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di alquran karim zikr wa shifa tey ñu ñëw ak yéen ci firi gént ñëw ci gént boo xam ne daanaka ñu koy gént bari na lool mooy gént gis président wala nga gént gis ministre walla yu aju ci yooyu dana ñëw ci gént gis nit koo xam ne nit ku siiw la ku ñu xam à part ñëw ci gént juge wala gént sëriñ boo xam ne day boroom xam-xam moo xam muy dund wala mu génn àdduna dinañ ci ñëw laaj yi bari na ci lool waaye tey dama njëkkee ci président rek li ngay jàpp mooy gént gis président min afdali rua président day yóbbaale soxnaam nga gént gis président wala nga gis soxna si président ñooy am atte min afdali rua maanaam ci gént yi gën a gën a gën a baax ci doomu aadama la bokk am na nag fu mu ñëwee du baax waaye bariwul waaye daal li ngay jàpp 98 pour cent baax na baax na yi ëpp ci mu baaxul loolu président bi si jëm mu la concerné waaye lu mel ni nga gént gis président boo xam ne mbaxana bi mu sol dafa wadd wala mu toog ci siège daanu wala mu doon dox daanu yooyu yoo xam ne baaxul waaye yow mi nga xam ne yaa gént président fi mu bonee bokk na ci nga gént gis président bi mere la waaw mu mer walla mu yuuxu la wala mu dóor la su boobaa baaxul li muy firi mooy def nga bàkkaar bu mag walla nga def njuumte bu rëy rëy ci sa wàllu dund walla ci sa liggéey wala ci sa wàllu njaboot foofu moom baaxul bu fekkee boobu daal baaxul bu dee nag gént gis président bu daanu li muy firi nguur guy jeex ci moom la président bu mbaxanam wadd wala siisam daanu baaxul nguur guy jeex la euh, baaxul ci moom waaye du ci yow ñu ko gént bu dee da gént mu dóor la kooku moom ci yow la baaxul comme ni ma ko waxee li muy firi mooy bàkkaar bu rëy boo def wala njuumte bu rëy ci sa wàllu liggéey wala ci sa wàllu yor wala erreur daal boo def boobu moom baaxul bu dee da gént gis président ni rek li muy firi daal Euh, euh, yiw bu bari ak xéewal yu bari ak mucc ak place bu kawe kawe kawe kawe ci ki nga xam ne moo ko gént te day firi lool gént gis ko nii rek laa wax baax na lool ci képp koo xam ne gis nga ko gént gis président mu nuyu la jox la loxo wala mu akolaat la wala mu wax la dara baax na lool li muy firi mooy danay firi yiw maanaam xéewal danay firi wërsëg danay firi texe danay firi mucc ci ay xat-xat ak i jafe-jafe yuy jeex baax na lool gént gis président mu may la xaalis firi woon naa ko ci bunt yi nga xam ne danay firi danay dana firi bunt bi nga xam ne dafa aju ci xaalis foo génte président may la jox la xaalis danay firi xaalis boo xam ne da ko jot incha allah baax na jigéen boo xam ne dafa nekk ci néegu sëy moom dafa gént toog ak président seetu na ko wala mu toog nga ak moom daal li ñu firi mooy bu fekkee da doon bu place pour liggéey yàlla dana la jox place wala boog sa jëkkër dana am place liggéeykaay bu baax a baax danay firi itam wërsëg gént gu baax la ala kulli xaal jigéen bu nekk ci néegu sëy mu gis président toog ay ak ay doomam am na ko fi laajoon neen dafa gént daal gis président ay waa këram ay doom boppam Euh, seeti président toog ak moom mu gis leen ci gént baax na li muy foone daal li muy firi mooy avenir bu baax ci doomam bi nga xam ne moom la am yàlla dina leen defal daal mucc gu rafet rafet ak xéwal ci seen dund gént gu baax la gént gis président mu di la reetaan walla nga mu wax ak yow ree baax na li muy firi mooy tadullu alal makaan al aliya maanaam li muy firi mooy place su liggéeyukaay bu baax a baax wala yëkkatiku bu baax a baax jigéen xale bu jigéen célibataire bu gént président nuyu ko wala mu accolade ko li muy firi mooy atteindre say objectif maanaam lépp loo xam ne loo doon yóotu la yàlla mën na laa dimbali nga jot ci bu dee da doon jàng njàng ma dem ci réussir bu dee da nga doon liggéey yàlla dana la si defal tam gént gu baax baax a baax a baax jigéen bu nekk célibataire bee waxaan daf koo nuyu rek ci ne da koo gis rek li muy firi place kaay bu baax baax na lool bu dee da ngaa gént président ñëw sa kër ci képp koo xam ne ku mën a doon góor la jigéen la célibataire la ku mën a doon baax na lool bu dee xale bu jigéen célibataire danay firi jëkkër ci moom maanaam sëy bu dee keneen ku mu mën a doon xéewal la ak sutura ak yëkkatiku bu baax a baax baax na lool lool lool gént gis président ci sa kër ci jànq wax naa ne bokk na ci mi firi danay firi sëy danay firi wërsëg léeg-léeg danay firi barke waaye danay firi uh, bénéfice bu dee da ngay def commerce boobu moom ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk xale bu jigéen ak ñëpp léeg-léeg bu bu ko gis daal danay firi bénéfice bu baree bari boo xam ne danga ko am incha allah balaa yàgg ala kulli xaalin li ngay jàpp daal mooy gént gis président de la république ci gént yi gën a baax ci doomu aadama la bokk yi mu bone wax naa la ko mooy gént mu dóor la kooku moom baaxul gént mu mere la baaxul bu dee nag kii am na ku ko fi mosoon laaj tontu woon nañ ko sax waaye neen daal dafa gént président yor yaru courant <laughs> yar bi daal nee na courant la muy dóor ay nit kooku baaxul ci président bi li muy firim mooy président boo xam ne dafay tooñ askanam walla danay firi itam ko président boo xam ne dafay sos ci diine loo xam ne bokku ca baaxul waaw man dafa génn président bi di dóor nit ñi li leen dóor ne ni yar bi daal dafa mel dafa am courant dafa am weñ euh, kooku baaxul nooteel ci président ci tooñ ak njaboot euh, nga mu yilif wa illaa muy firi président bi yokk ci diine wala yàq ci diine ji loo xam ne bokku ci woon ala kulli xaalin loolu moo dellu ci gént gis président ku ci am laaj mën nga ko envoyé ci numéro whatsapp bi wala nga seet ko ci biir page bi incha allah mën naa am nga gis ko ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu